child and he or she have a brother or a sister only on the mother's side, then to each of them the sixth, and if there be more than two, then they shall be the sharers in the third, after any legacy they have bequeathed or debt contracted, not injuring the heirs by willing away more than a third of the heritage hath been paid. A commandment from Allah. Allah is Noah indulgent. We come to the end of today's program. Hassanatu Abdurrahman Jalo and Haja Maimuna Yadali Savage are your presenters. We thank uh, uh Usman Jalo for helping us or assisting us in the studio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. waxoon naa leen ne affaire bi fii la na des bi néew yow mii dox leen man de xam naa li ma amagum doy na kuy defal yàlla ci li ko yàlla may waay ci weeru koor waay kuy defal yàlla ci ndogali waay yow mii dox leen ci weeru koor <laughs> ma daan moo bëri nga leen weget waay manta kii wane weget ek mor léegi tegeet gumba dama da ngaa gënoon oyo waagaan dégg na affaire weer koor bi affaire weer bi saraka dafay bari moo tax ngeen génn fii ne da ngeen gumba gumba waa lu nekk ci muus gi xanaa waagaan ñàkk ngeen fulla ñàkk ngeen fayda da ngeen di saraku ndéeg eh, am yàlla leen nañu la ci yéen fay musiba waaw kaw de ba foo demoon da ngaa génnoon yal na yàlla fay musiba ma ne Mor yàqu nañu de gis nga kaw dema defa mun a fen be nga xam ne bu demee kër ga lu nekk lay wax waaye wuy ma ah li ah. fi neex na ma pare de nañ ci continuer rek man de amagum naa ma fi nekk ñi waxuma la dara waaye ndegu moom am naa ko ay 75 am naa ko waaw kay dafa yàlla den ko leel ci weeru koor gi waaw góor ah waaw kay yal na yàlla fay la jërëjëf waay yal na yàlla fay la waaw kay jërëjëf waa ma ne yow de seen bi dama ko may. waaw rafet na de ah la ma ne. am na lu mu la jox rek ma xool ma xool taraxe na ah, taraxe kay ñun dox ñoo jóg kay du bon yi de ah kay kay taxuma ah, moo bari ne. kay ñun deewuñ ko dara dem maa suñu tax a jóg. deewuñ ko dara. léegi nii fi nekkee nii ngeen fi nekkee nii ngeen fi nekkee yéen ah. waaw Incha. Eh, naam naa nga def nag. am sa xaalis bi. xaalis bi waaw. waaye nag maa laay wax jërëjëf. jërëjëf yow tamit waaye ginnaaw jërëjëf bi. ah naa la ne démb nag li nga wax yëpp dégg naa ko waaye dama foog ne ñun ñëpp ay jullit lañ. ma gis ne waxtu bu nekk yaa ngi toog fii di julli téye sa alxuraan bi di jàng. wax nga dégg ma romb suma mbokk yëpp ñëw ba ci yow wax la suma boppa nga suturaal ma waaye li nga wax yëpp dem démb li ma tëdd ci néeg bi maa la doon dégg waaye du ma génn tontu la tax nga ba ñu ma dëkkal yëpp xam ne dama la leb xaalis Ah. kenn du dëgg du yoon kam nga li ma bëgg nga kam ko man dooma fay ba pare encore nga tas ma ci ndax kaalis bii maa liggéey mu leew ma dong ma jël ko ma lebal la ko bi ma la koy lebal kenn dégguñu wax naa la ko nag doo ko war a ñëw di ma ko fay nga war a takaw fii di ma kas di ma wax naa ko sudul noonu ca wax bari te ñaaw incha xam nga ma bëgg nga kam man amul dara loo mu mun a jaay mu saf ma ndax kaalis bi ma la doon lebal dama ko ñàkk su ma su ma ñàkk la maa ko ñàkk maa ko ñàkk nii mu metti suma ñàkk bi man kaalis bii ni nga def ba jot ci man upp man lépp dama ko kam yaa ngi may dégg boo buggul ma wax nag fay nga ma ci njëkk ak teraanga lebal naa la ko njëkk ak teraanga kenn dégguñu kasu ma wakku ma la ci dara waat naa ko nag waat naa la ko waat naa la ko nag tey man maa sa jëkkër ci marché bi mu ngi gumba gumbul di yalwaan moom ak moom ñeme sa billaay wallaay tallaay maa ngi ci weeru koor bu fekkee li ma lay wax nekkul lu ma teg suma bu ma ndogu maa lay wax li maa lay ko wax kon fay bi ma fay du tàng nga yàmma ci de wax naa la ko nijaay ma ndogu nijaay ku dul wax dëgg dañ koy kiiñaa ca kanami mbooloo yow yaa ñeme sa borom yow yaay wax waaye seen nijaay bu toogee fii du ko eh, wax yow yaay wax yow yaay wax ati loo wax sama eh, eh sama mandat eh, déglu déglu rek déglu sama mandat dama bëgg boo ci waaw gaawal lan la la wax. waag naa lekku nag. nijaay jëf ji bon ji noo ko ma ne. waag naa lekku de. yow suma mbokk bu la fekkee ci marché bi nga ne ngay gumba gumba lu nijaay gumba wa patte wala ak gew ay nijaay lu la xëy ci yalwaan. waaw kay. nijaay patte wala ak gew yore su juróom-ñaari cër ma mat sëkk nijaay dara jotu la nga dem taxaw ci marché ba yalwaan. boo gisee ma wax ma def loolu incha xaaral rek ma wax la. neexul ba neexul dinaa la wax dëgg waaye kii ku la ku mun a fen nit da am sutura soo gisee ma dem di yalwaa di kon yelwaan ngeen def waa dee déglu rek déglu rek soo gisee may dem di yelwaan dégg la patuma lagiwu ma barkaati démb damaa xëy aw ma barki dem ma xëy aw ma dem ma xëy aw ma tey nag ma ne naa jàpp ci yelwaan mi ndax weeru koor gaa yi dañuy saraxe sa morom yi dong ñooy këy dégg nga maam di dem di daan seen doole wuti liggéey ñii liggéey say morom lañ gënu leen gis nga nag booy gumba gumbulu ba gumba yaa ko teg sa bopp de wax naa leeku nag yàlla teegu leeku de lu leen keew nag ñeeni nettu yàlla la nettu yàlla la boobu sa nettu bopp la wax naa leeku et puis sax suma basang suma jégal ma bu fay sa dina la dëkk la rek ci la dëkk rek la lay rek dara. Thank you Allah for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you Allah for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing If you have any questions that you want answered during the holy month of Ramadan, all you have to do is to send us a text on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 3030 300, Comium 6060 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS. i natin nake yo kule eh, eh, eh. kata windole e yo ngata asuwo kon fada mbawi bulo fare ndasalo ndel ta ɗumole e ñimɓe muñi ndetalde yagginen ndimbalal ani koy wan ko yeyi min jete ñim kumba ñim penda ñin teɗe ñin ɗo yinte fam sa nde ɗum e itteɗa ñi sotono e mona kata yaala ñim ka sotoɗami cewu sele birin karo sun karo tilifolo o kada til tan lu ah. ah. mhm. ni ni si jim ka do sanje isi diamu isi tasalo fana so je kawo sun karo tilifolo kada til tan lu mhm. ye sim garo sa ye da dara stan lo diam yena na mu re tasalo reta tasalo je dama ay jim tan i o dama e fara mo do fana kada itariya de بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام ركنا من أركان الإسلام ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بوكي جلدي بوكي mbokki Kanifing Estate imam alhaaji Ousmane Niang imam الشيخ alhaaji Souleymane Keita al mudirul am yéen بيب estate di leen tatagal ci weeri koor bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. comme niñ ko baaxoo di def yéen ak kiw sel at bu jot ñëwati nañ incha allahu ci weeru màgg wi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nga xam ne weeru ñaan la weeru nangu ñaan la ba looloo tax ñu yaakaar béréb bi yaakaar place bi yaakaar kilifa yi ñëw indil leen dogu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku dogal nit ci kooram am nga kem lu toll ne kooram nga te wàññi sa koor dara loolu tax borom kii